Auzubillahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin baad mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne bi muy Sëriñ Jéene TV ak TikTok bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyu nuyu lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm comme niñ leen koy baaxoo di leen ko defal rek di leen indil ay mawdo ci gént ndax ngeen am ci ay takk-takk nga xam ne ñaare li ci ëpp nag dana tegte la loolu tey nag dañ leen indil gént fiir comme façon fiir nag bu mën a doon moo xam raccital la moo xam fiir yiñ daan fiire ay jina xaak xeen yu deme noonu wala fiir yi ñuy ci àll bi muy fiiri kàpp ak xeet yi deme noonu gént fiir nag ci ab takk-takk moom it na ci xeeti ngànnaay yoo xam ne day tegtale ay pexe ci ñu gën a bari masalan ki nga xam ne day gént di fiir pour jàpp dara moo xam jàpp na wala jàpput ak it jigéen yoo xam ne dafay gént di fiir moom moo xam jàpp na wala jàpput wala sax koo xam ne day dañ koy fiir dañ koy defal ay pexe fiir pour jàpp ko yooyu bu ci nekk am na ay tegtal ki nga xam ne dafa yor ay fiiram. gént di fiir moo xam picc lay fiir moo xam pigeon lay fiir wala xeet rabi àll loolu ay pexe yu muy nit ki la ay pexe yu muy nit ki pour jekku ko benn mën naa nekk ak jubari ngir lekk alalam mën naa nekk it pexe yu mu koy fexeel pour yàqal ko muy liggéey ak yu mel noonu mooy ki nga xam ne moo koy def Euh, ci biir fiir gi nag bu fekkee jàpp na moo picc la jàpp doonu fiir jàpp ko moo xam pigeon moo xam rab wala moo xam sax nit la ba jàpp ko loolu dana tekki ak jekko ku muy jekko ci moom kum doon pexeel ba jekko ko rawatina mu doonoon ab sëriñam ñaan ñaare ba tey su fekkee gént nga fiir ba jàpp loolu dana tekki ijaaba ci yow loolu dana tekk ijaaba ba tey fekkoon na ko xam ne day ñaan pour Euh, tas ngeen euh, bu fekkee jigéen nag moom moo yor fiir gént di fiir ngir jàpp waaw moom it ba tey du sori loolu ndax moom ay pexe yu muy pexeel la moo xam nit wala wala ko mën a doon waaye mën naa doon ci moom ñett nag ñaare bu fekkee day fiir mel ni picc wala petaan wala xeet yi demoon te lum fiir mu rëcc ci daw loolu dana tekki koo xam ne du toog ci maanaam jëkkëram jëkkër du toog ci loxoom waaw bu fekkee day fiir te lum fiir bu ko jàppee rek mu rëccaat loolu dana tekki koo xam ne jëkkër du toog ci loxoom dana tekki koo xam ne wërsëg du toog ci loxoom dana tekki koo xam ne ñaare lum ëmb rek ba am ci yaakaar loola loola jigéen dana tekki loolu. amma jëmmi yow nag bu fekkee da ngaa gént ñu lay fiir pour jàpp la loolu tamit pexe seytaane bokk na seeni pexe fiir am na baat yoo xam ne booy génn wax ko sax seytaane mooy deel miim mooy dëmm nañ ko xamee léeg-léeg bu fekkee da ngaa gént gis fiir yu bari ñoom loolu mën naa tekki seeni pexe loola bokk na seeni ngànnaay fiir pour jàpp la seeni fiir am na ay baat yoo xam ne mooy génn wax ko dana raxas seeni fiir yaakaar naa def naa ko ci sama ci tiktok bi boo ko xoolaatee danga ko gis loolu dana koy tekki muy pexe seytaane yoo xam ne ngay gént ñu lay fiir pour jàpp la wala ngay dox bu fekkee borom gàllaaj ya boo doxee ci fiir fiir gi rax loolu ku am gàllaaj koy def waaye ay muhim boo géntee ñu lay fiir pour jàpp la xamal na ñu ngi lay pexeel benn mën naa nekk liggéey benn benn mën naa nekk ay pexe pour jëlee la ca barab ba nga nekk wala wàcc la ca paso ba nga nekk benn mën naa nekk <clears throat> ay pexe seytaane yu la topp loolu nañ ci bàyyi sa xel bu baax kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci ci ci wàll woowu indi leen ci ay ay takk-takk yu wér nag yoo xam ne ñaare bëriwul lu muy ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ndax ak di ko yaatal bokk na ci li koy dundal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.